الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله سن بوك امام عبد العزيز نجاي bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo del si tey jeudi 21 juillet 2022 di waxtaan ak yeen mu nekk suñu audio numéro 327 ci suñu jotaay bi passé mbokk yi gisoon nañ kéemtaan yi nga xam ne borom bi allah subhanahu wa taala won na ko yonent bi ca asamaan juróom-ñaareel waaye li ëpp solo ci rañaan gi li tax borom bi allah subhanahu wa taala tigi tigi rañaan yonent bi mooy julli yam ko jox julli yim ko jox pour xeetam julli yim ko jox pour jullit yi di ci jaamu seen borom allah subhanahu wa xanaa ñu taxaw fi tuuti rek wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa eh, laaj nañ ko suñu yaay Aïcha nee na laaj nañ ko ndax bi ko bi ko borom bi rañaanee gis na ko yonent bi nee na gisu ko leer la gis kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu yaay Aïcha nee na laaj nañ ko ndax gis na borom bi biñ ko ràññaanee yonent bi ne déedéet gisu ko moom leer la gis pour mu xam-xam yi ñu ne malaaka moo doon moo doon dox dox yónnent bi malaaka moo doon dox yónnent diggante muhammad sallallahu alayhi wa ak borom bi allah subhanahu malaaka moo doon jottali waxu borom bi yónnent bi pour mu gën a leer yonent bi borom bi juróom fukki julli la ko joxoon juróom fukki julli maanaam ñuy julli juróom fukki yoon cinquante fois ci bés bi loolu la ko njëkk a jox waaye yonent yàlla Moussa alayhi salaam moo ne yonent bi duñ ko mun sa xeet jullit yi buñ mëna julli juroom fukki yoon ci bës bi Moussa buñ fàtt amna experience ak wa banu Israël euh, ci loolu sukkanduko ci bop doomu Adama ak lego legi seen ñak pas-pas moom ci loolu sukkanduko ne yoonent bi demal wàññil lako yoonent bi dem ñëwaat Moussa laaj ko mu ne ko jox nangam mu ne ko delul à chaque fois su yonent bi ñëwee Moussa diggal ko yonent bi dellu ñaan borom bi allah subhanahu wa mu wàññi borom bi di wàññi di wàññi ba bu amee juróomi julli ñëw ci Moussa Moussa ne ko juróom yi bari na ba léegi de demal mu wàññil la ko yonent bi ne ko déedéet am naa kersa ca dëgg-dëgg di dellu muy wàññi juróom yi rax ci dolli nag sax moom suñu borom ma xamal ne ma ne juróomi julli yi buñ ci def rek su ma xeet benn bu mu ci def rek daf ko koy konteel fukk benn bu ci def rek dañ ko koy konteel fukk kon ñun suñ jullee juróomi yoon ndekete juróom fukki julli cosaan ya moom la ñuy konteel mbokk yi suñu borom moo baax kon ndeke juróom fukki junne juróom fukki julli yu cosaan yi nga xam ne moom lañuy ñu borom bi tegoon suñu dood dood ba léegi moom la ñuy bindal comme tiyaaba ndaxte julli bu ñu julli rek daf ñu koy konteel fukk kon ci kaw loolu la yonent bi ne Moussa am am naa kersa dellu yonent bi ci kaw loolu kon ci la delsi ba jamono ñu toll nii ñuy julli julli juróom di ko jaamoo borom bi lim ñu defal ci julli lañu defal ci bépp jëf ju baax bépp jëf ju baax bu ñu def borom bi def ñu koy konte lum tuuti tuuti fukk léegi-léegi mu konte ko juróom-ñaar fukk yoon soixante-dix fois léeg-léeg mu dem sax ba ci sept cent sept cent fois léegoo léeg léegoo léegi nag sax duñ sax malaaka yi seen bopp duñ xam sax ñaata la koy compter dafa ne dañuy xaar ba yegsi ci moom mu mu daal di ñëw mu daal di ñëw fay kon li gën a tuuti mooy borom bi su suñuy fay suñ defee jëf ju baax fukk fukk moo gën a tuuti ci lim ñuy fay allahu akbar mbokk yi borom bi yiw rek lañuy yéene yiw dong lañu ñu yéene nañu yàlla yombalal ñuy jëf ba yiw yooyu ñu mun di ci màng di ci am kon borom bi jox nañu jox na yonent bi juróomi julli Jibril nag moo ñëw jàngal yonent bi julli yooyu naka lañ koy jooxee ak ci yenn waxtu lañ koy jooxe jibril la yonent la borom bi allah subhanahu yebal ginnaaw bi bi mu delsee mu jàngal ko naka la ñuy joxe waxtu yi juróom ak ci yan waxtu ci yan jamono lañ koy lañ leen di julli kon juróomi waxtu yi suba tisbaar tàkkusaan timis gee heure yi ñu leen di julli jibril moo ko jàngal yónnent bi waxtu bu ci nekk ñëw na ci boppu muxtaar ba jiite ko bët set waxtu woowule jibril ñëwaat ca fin muxtaar ba maanaam ca tàmbali daruru bi jiita jiite ko mbokk yi xam nañ lan mooy muxtaar xam nañ lan mooy daruri mu ngi ci audio yi nga xam ne moom lañu jagleel julli kon jibril moo jàngal yonent bi naka la ñuy julee moo ko jiite yonent bi gis naka la heure yi itamit jibril moo ko jàngal ne heure yi ngay ngeen di joxe waxtu yi waxtu yu juróom mbokk yi dëgg la audio yi audio am na audio yu bari yu ñu jagleel julli kon am na trente et audio amna na euh, audio ak benn yoo xam dañ ko jaglé julli mu ngi ci mu ngi ci sunu mu ngi ci chaîne YouTube bi waye dafa am lo xam mom il faut ñu wat ko moy hadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam dañ ko laaj ne ko ya rasulullah fi ci ko suuf lan mu upp importance ban yool mu upu doole ci yool yi ban jëf moo ëpp doole ci jëf yi fii ci kaw suuf pour ñun jullit yonent bi sallallahu alayhi wa ne saaba yi ngeen julli ca waxtu wa prier à l'heure julli ca waxtu wa loolu mooy lu ëpp importance fii ci kaw suuf kon mbokk yi njàngale yonent bi bii sallallahu alayhi dañ bëggoon na fàttali pour jeexalee ko audio bi kon yàlla nañu yàlla xiir di julli waxtu yàlla nañu yàlla xiir di julli waxtu kon nag mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàngu ko ci benn guddi gi ci benn guddi gi la delluwaat dañ ko rañaan mu delluwaat ci benn guddi gi mu dellu Makka ñu yemale waxtaan wi fii incha allah ñu fi dajawaatee ñu xool kon waa Màkka ñoom naka lañu gisee mbir mi subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahuma salli ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim